maire bu Niaguis ñu taxaw tuuti ci Ziguinchor bi nga xam ne euh, la ville est entre les mains d'un d'un opposant muy Ousmane Sonko euh, tey jii nii euh, xëy na yàggul un an rek lay lay toll bi ñu ko faleeg léegi mais ndax gis nga ne l'image de de de de de la municipalité bi ñu ko confié xaw na am tuuti soppeeku bu baax ci ci ci xar kanam. sëñ bi da nga bëgg ma dem di juger liggéeyu maire sama collègue maire man sama commune lay lijjanti par contre. le contrat de confiance. Mhm. bi nekk entre Ousmane Sonko ak ay administrés boo bëggee xam baax administrés ngay yaay. bëggoon naa ci ay administrés wala loo ay administrés ngay laajte. man li may lijjanti mooy man li ma waxanteeg sama population. Mhm. est-ce que maa ngi koy matali. est-ce que je suis à côté de la population est-ce que population bi ñu ngi gis liggéey bi may def. est-ce que ñu ngi ciy gis seen bopp man loolu lay lijjanti. sa noon dala war a jege même si là c'est pas un noon comme on dit mais adversaire ah, la nag ma dégg ñu ne da nga waroon sax ñëw nekk suñu maire man na leen dee yaa leen tànn seen maire man li ma war a liggéey man ça veut ah, il faut leur demander il faut leur demander man ne euh, man nag man mënu ma nekk maire Niaguis nekk maire Ziguinchor bàyyi leen ma rek Niaguis ma liggéey sama liggéey mais il faut leur demander micro-trottoir faites votre boulot euh, vous avez l'habitude de le faire vous êtes des professionnels